mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak euh, réew mi FM dal leen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimonche bu jot ci waxtu bi tey nag ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi dañuy waxtaanee waat euh, la xewoon 13 avril 1987 muy keroog bi président Abdou Diouf jëlee dogalu radier policier yu Sénégal yépp gannaaw gi mu am ñu mu delloosi waat ak ñoo xam ne ña nga desoon ba tey ca biti euh, kenn nag ku dund loolu itam moom la ñuy dalal tey muy commissaire Boubacar Sadio commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle de police à la retraite muy koo xam ne miin nañ ko lool waaye xëy na euh, facetu rajo bi gulet la ñu koy waxtaanee ak moom tey ci réew mi commissaire ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci dem ak tey. Euh, Fatou maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu aussi say auditeurs euh, di kontaan aussi ci nga xam ni opportunité la maanaam occasion la pour ñu wax ci mbirum policier rajo yi. Mm-hmm. je crois soxla ko trop. parce que am na xëy na yu bëri yoo xam ne xamuñu ko wala rëcc na leen mhm. je crois baax na ñu bamtuwaat ko mhm. de loo xam ne xëy na dafa am importance ci taarixu police mais aussi ci taarixu Sénégal. dëgg la alors euh, commissaire euh, ni ma ko waxee 13 euh, avril 1987 ci la leen président Abdou Diouf radié woon est-ce que mun nga ñu ñëwaatal ci xew-xew boobu. Fatou li ma la mën a wax mooy xew-xew boobu xew-xew bu tiis xeexoo bu métti la woon ci police ak ci askan bi yëpp parce que policier aussi ci askan bi la ñu soppeeku euh, bon dinaa faral di dégg ñu bëri di si def ay seede euh, maa ngi leen si sant lu baax lu bëree bëree mm-hmm. waaye je crois que tey jii Sénégal yi saa euh, du fóot boppam waaye li ma ci mën a seede amul kenn koo xam ne fii si Sénégal mun na ko si seede. Mm. li tax ma wax loolu parce que si njëlbeen bi. Euh, maa ngi ci woon ak ci mujjanteel boobu ci maa ngi ci woon mooy euh, njëlbeen bi lu ko indi mooy arrestation ku ñuy wax euh, Baba Ndiaye ensuite mu am procès procès bi nag li ay condamnation yoo xam ne moo jurloo événement treize et quatorze avril yi événement moo jur suspension bu Abdou Diouf décrété ensuite ci élection député yi def radiation bon bi loolu aussi léegi ñun ñu créé li ñu wax la coordination nationale des policiers radiés loolu aussi bi ñuy xeexee mu jur lu ñuy wax insertion dans la police municipale maanaam ñu tabaxal ñu taxawal lu ñuy wax police municipale ensuite léegi ci biir police municipale boobu mu am lu ñuy wax mise à disposition léegi mise à disposition bi ñu da ñu dawal ci ay at léegi mu indi admission de la dans la police nationale maanaam policiers yi rajo woon ñëw nekk policiers municipaux finalement ñu dugal leen ci police nationale comme ñu nga ko gisee si njëlbéen ba ba ci mujjanteel ga vraiment acteur principal laa ci woon je crois que après xëy na mun nañ ci ñëw par benn benn étape pour expliquer ko bon euh, étape bu njëkk bi mooy affaire Baba Ndiaye day koo xam ne receleur la woon maanaam ñii ñi dañ doon euh, sàcc ay ay batterie oto la surtout mais ak yeneen bagage ñëw di ko ko jox mu koy jaayaat moom mu ngi woon euh, rue Escarce alors bi ñu ko jàppee biñ koy doog a indi euh, man la fekkoon may mu chef de la sûreté urbaine en même temps ma nekk le chef de la section de la police judiciaire bu sûreté urbaine léegi euh, ñu présenté ma ko ma jël enquête bi am ku ma ko jox hmm. benn officier de police pour mu def enquête bi mais aussi biñ koy indi maa ngi gisoon muy soox moom Baba Ndiaye ma laaj waaw moom Baba Ndiaye ma laaj ko looy sooxal ni mu ne ma dama am fettu Saalum ma ne officier de police bi léegi jëlee réaction pour ne ko bi si police bi fii dafa ànd ak fetu saalum léegi bi ñu fetu saalum mooy fetu saalum jaaru taap la hmm. bu nekkoon si euh, euh, pot bi voilà genre tape la donc léegi bi ñu pare enquête euh, bi ñu defeere ko fekk vraiment sonn na trop ñu jël ko yóbbu ko pooj bu hôpital Aristide Dantec foofu la mujjee gaañu alors bi ñu gaañu mu réquisitionné benn euh, docteur mu def expertise bi bi mu def expertise bi mort naturelle la mais waa Kër Baba Ndiaye euh, euh, déedéet ñoom d' accord ñu si conclusion yooyu ñu defaat contre expertise benn docteur bu ñuy wax Isidore moo def contre expertise bi mais en fait li ko rey mooy traumatisme maanaam dañ ko méttital léegi euh, waaw. léegi te yéen dooru ko ca commissariat ba. waaw loolu moom du du ma ko man ma vraiment euh, mënu ma dugg si détails yooyu. Mm. bon euh, parce que koo xam ne moom laa dénkoon enquête bi moo doon def enquête bi ak benn brigade A bu sûreté urbaine parce que daf naa amoon ñetti brigade A B ak C wax dëgg yàlla mun maa seede ni dañ ko dóoroon te comme aussi mun maa weddi aussi que dóoruñu ko wax dëgg yàlla n'est-ce pas. donc léegi euh, bi ñu defee euh, contre expertise bi euh, njaboot gi porte plainte léegi dañuy porte plainte contre police parce que ñoom ñoo dóor seeni mbokk ba léegi nag ñu nekk si procès bi nekk si procès bi parce que boobu quatre vingt trois la woon parce que Baba Ndiaye ñu ko arrêté trente juin le trente janvier quatre vingt trois ci guddi bi boobu quatre heures du matin yooyu quoi léegi procès bi Euh, ñuy dem di dem ba finalement ñu def le 10 avril 87 ci la ñu joxe verdict bi verdict bi policiers yi parce que juróom-benn la ñu woon si ñaari at ak pour ñu fay léegi euh, dommage intérêt six millions bon policiers yi xam nga loolu fekk dañ la ko teg yow policier daanaka euh, sa dàq xaj na ci waaye policier jàppu leen kenn jàppu leen su mandat de dañ leen bàyyi ñu ñibbi. Hmm. bi ñu ñibbi nag dañuy jaar ci nga xam ne. moo doon chef ci urbaine bi wax ko ne ko tribunal lañ jóge waaye lii ak lii ak lii la ñu wax mooy verdict bi moo am lu ñu waxante am na détail boo xam ne aussi du ma ci dugg parce que man maa ngi bind livre bind naa sax livre bi ba pare mhm. yoo xam ne yenn détail dinaa ci dugg donc ah livre bi yëpp aussi mënu ma ko wax nii quoi bon bi ñu waxtaanee ak seen kilifa boobu ñoom ñu génn ñu ñu génn ñoom kontaan nañu si verdict bi donc léegi li ñuy def mooy dañuy euh, def manifestation ñu dina benn tract tract bi sax sûreté urbaine boobu lañ ko tàppe hmm. ñu ko jox officier de police boo xam ne moom lañ ko jox moo ko tàppe ensuite euh, ñu koy distribuer léegi ci commissariat yi euh, benn waay benn policier benn inspecteur de police ci oto boobu lañ dugaloon tract bi di ko distribuer d'ailleurs sax bi ñuy dàq ki nga xam ne moo bind tract bi ak ki nga xam moo doon dawal oto bi ñooñu kenn dàqu leen de. Ah nest waaw loolu kenn dàqu léegi donc euh, kilifa yi am euh, information boobu boobu man maa ngi commissaire bu ci waawoon euh, commissaire Sadibou Ndiaye nga xam ne mu jëlee gaañu d'ailleurs sax. Mm-hmm. dinañ ñëw ci biiram te na ma commissaire Sadibou maa ngi téléphoné commissaire yi parce que alkaati yi leen di dafa bëgg def mu ma doon leen ko yëgal pour ngeen jël seen disposition. Hmm. fekk man. maa ngi euh, woon si ziare général ci waawoon mhm. bon ci ëllëg si ci léegi euh, bi su hôtel moo oo samay personnel ñu waxtaan ñu waxtaanee bon ma manifestation bi duñ ci bokk ak yooyu léegi manifestation daanaka Dakar la am donc benn bi ñu ngi tase commissariat central jógee commissariat central ñu def marche jaar place de l'indépendance jaar buntu palais euh, dem ministère de l'intérieur bon bi ñuy romb pale sax am na quelques uns yoo xam ne bon doon nañu wax soppi soppi mais euh, disons que alliance par la woon daal ñu ko tubaab yi di waxee bi ñu egg ñu ne léegi ñoom dañoo bëgg a ministre bi wax ak moom pour wax ko seen doléance bon finalement ñu toog foofu ba ay boro dix-sept heures dix-huit yooyu bon ñu finalement euh, mujjee wu ñu wax ak ministre parce que bu ñu woon déglu ministre bi ci ñu bëggoon waxal surtout moo doon le directeur général ah du ma wax tout le show aussi parce que xëy na bu ma waxee du ko neex mais ministre bi moom ñu ngi def bon bi ñuy dusee euh, à dix huit heures le lundi euh, ministre bi convoqué commissaire yi pour ñu ñëw ministère pour ñu mbir mi alors bi commissaire la ñëwee di waxtaan ministre bi benn euh, chef de cabinet du ma wax aussi tuuram mais hmm. ministre bi commissaire yi ngay gis nii ay naar fekk lañu ay complice parce que bu leen neexoon ñu fii du am mu am commissaire boo xam ne aussi du ma wax tuuram dafa jóg ne comme ministre bi yéen da ngeen ñuy yab suuf nga xam ne vraiment mu ngi ñuy wax ñu ñoo ko gën a gradé mu jàkkaarloo ak yow di ñu tëral sa poste vraiment euh, mu wootee meeram daal. Mhm. ministre ministre bi ne leen ah man daal si kuréel ak daal gendarmerie waaw pour que vraiment ñu assurer service bi commissaire yi ne ko. gendarmerie bàyyi ñun bu ñu jógee fii. dinañ gis ci cantonnement yi. Mhm. dinañ gis APS ak ak ñoom. pour que ñu reprendre service bi exactement loolu def guddi gi camp bi camp yi gis yenn alkaati yi ñu sëñee sax yoo xam ne retraité police bu yàgg sax. Mm. ñu oo leen ñu ne kaay leen leen jàppale ñu ci mbir mi. donc donc rendez-vous ci élection mardi bi monsieur le central am na waxtaan mais commissaire bi ñuy wàcc. lañ mm. leen di à dix huit heures ñu tase ak ci gendarmerie bi yépp di dem si bureau ministre bi alors ah, ci lañ jàpp ne ah, fekk moom ministre bi convoqué na gendarmerie seen ginnaaw mu ngi woon ci li ñuy li ñuy décidé maanaam ci la rek rek pour gendarmerie ra euh, alkaati yi hmm. bon alkaati bi ñu demee commissariat central ensuite pour ñu dem reprendre sen service dem nañ ba foofu sax ba waxtaan doyen yi nga xam ne dañoo retraité woon vraiment muy ñoo xam ne dañ leen joxoon waxtaan ak ñoom ne leen bàyyi leen li ngeen di def nangam nangam ba alkaati d' accord. Hmm. léegi alkaati di dem pour fekk sa point de service. mais ku nekk boo defee sa point de service nga fekk gendarme bu ma taxaw. Hmm. donc léegi ñoom ñu dellu si waat encore ñu replier le commissariat central muy deux parties bi. léegi nag foofu la ñu jógee di dem jaar place de l'Indépendance léegi nag bi ñu eggee foofu ñu wax BNDS fa la ñu fekk gendarme bi taxaw ñu def seen fetal tiim pour ñu bañ a romb foofu daal waaw. léegi alkaati aussi a ah, ci sa bopp moom ñoo xam ne dañoo dañoo am ci la centrale. Mhm. magasin àll bi. daañu koy def di sax am benn commissaire boo xam ne ñi ñu am nañu respect si moom parce que moom ne euh, magasin balaa ngeen koy daj ci sama néew. mais tout moom ñi ñu amoon nañu teg si moom ñu bëri dellu si bon ñi ñu delluwaat am. place de l'indépendance ba amoon na tout xeex bo ci yoo xam ne ak tout yoo xam ne jot nañu waxtaan nit ñi ba affaire calme daal donc ñi ñu replier dem bon mardi ci mardi boobu dafa am bi lan ngay def ci biir conseil de ministre ñu am katinange bi rek nga nekk fi dama mun dem vraiment nga sur le terrain nga régler problème bi d'ailleurs sax ci ci boor gi si le président jël benn décret n'est-ce pas euh, je crois que vingt neuf ci la limoché le ministre de l'intérieur boobu Ibrahima woon la woon quoi léegi mu suspendre la bon ñu convoqué léegi urgence assemblée nationale pour que ñu vote loi pour radier policiers bon bés boobu le 15 avril Euh, assemblée nationale xam nga député socialiste yi ñoo fa ëppoon mhm. donc euh, léegi ñu voté loi bi waa PDS euh, ñoom ñoo nekkoon opposition wax nañ ñu nekk ne leen bu leen voté loi bi parce que vraiment ay ñoo xam ne liggéey bi lu nekk def nañ ko état bi amu leen di dàq loolu la ñu voté loi bi dàq mu tudd si policiers yi quoi waaye sax li ñu waree ni xam ne jaarul yoon parce que euh, ministre euh, Jean Coré ci boppam bi ñu waxtaan ak bi ñuy wax ak député dafa leen ne bu ñu toppoon yoon ñii ak nii la ñu waroon def donc xam nga ku la bu ñu toppoon yoon dafa wane ni que toppul yoon mhm. donc ñun dana mos a yàgg nit ñi dàq di yoon parce que keroog ci jamono yooyu constitution bi ak règlement nit ki ki ko mën a dàq mooy ki ñu xam ne moo ko fal bon ñun point li ñuy fal mooy exécutif bi maanaam euh, président ak euh, nu mu tudd ministre de l'intérieur donc boo amee ñoo xam ne ñooñu war a dax am nañu moo war a dax commissaire ak ministre de l'intérieur dàq ñu si def ndax assemblée nationale amul woon droit dàq ñu mais xam nga rek jamono ya Abdou Diouf dafa daw ay responsabilités am n'est-ce pas et il était influencé par aussi Jean Collin te député aussi ñu ma daal aussi daw sen responsabilité woon euh, ñàkk fulla ak ñàkk boo xam ne vraiment ñu wote loi boobu d'ailleurs sa loi boobu moo tax suñu maam Abdoul Aziz Dabakh euh, di wax article député mais boo leen da ngeen seet li ngeen di woote boo xam ne dafay loor askan bi donc radiation bi daal noonu la demee hmm. ñoom dañu woote loi ba pare danaa taxaw ñu ne léegi dañuy voté motion de félicitation moom lu tubaab di wax dañoo voté motion de félicitation par acclamation debout maana mooy mais kaay la ñu jóg ñun ñëpp ñu tàccu pour ñu wane suñu mbégte ci li nga xam ni ci comme loi xam nga loolu doy waar la mm. bon si mercredi aussi euh, ñu convoqué commissaire yi école de police ñu leen di woon film film événement yi mm. parce que euh, rajo ORTS la woon jamono yooyu mm-hmm. mu ngi doon filmé alors bi ñu wane film bi mu am benn commissaire boo xam ne affaire yi daal dafa jeexal xoolam daal. Hmm. mu jóg paasam dem teg dañu tuddee ci euh, fil bi. ne hmm. lii daal vraiment lu awa ne lii daal ñu ñaaw ko parce que dañu la doon woon fil bi te ne na nga xam ne sa élément rek nga dénoncé ko quoi n'est-ce pas xam nga loolu dama xaw a dama xaw a ñaaw. Hmm. waaw donc léegi euh, bi nga xamee nag ah bon euh, ñu ne léegi dañuy def ay commission. maanaam tey ko demande at bu nekk nga def demande pour wax na ni que dafa bëgg ñu dellu ko biir police te ci demande bi na wax ni bu delluwaatee police euh, ni mu tuddee ci sawloo ak charte yi nga xam ne ko xam donc ku nekk def euh, benn demande individuelle pour déposer ko foofu donc euh, ñu créé ak commission yi nag d' ailleurs balaa commission yi bi ñuy rajo ba pare gendarme moo ñu remplacé Mm-hmm. n'est-ce pas. Mm-hmm. Euh, police commissariat de police yëpp mais am na alkaati yoo xam ne dañ a jàppoon disons ne leen toog leen seen place parce que boobu jamono yooyu dañoo woon remplacé parce que ñu doon liggéey moo doon xaw a spécial daal donc mooy am ay réintégration provisoire bon en fait li nga xam ne sax mooy bi euh, d'accord kii baa ngi ci nu mu tuddati euh, manifestation mm-hmm. alkaati yaa ngi aussi nit ki booy wax dëgg na nga wax dëgg. Mhm. parce que alkaati effectivement. ci maa ngi leen woon ñuy def lu mel noonu. waaye nag lu mel noonu boo amee aussi. Euh, ci sunu action collective. c'est-à-dire que munoo maasale ñëpp ñooy da leen di fonctionner euh, nga war a déterminer les responsabilités individuellement. Mhm. ki ci bokk ci effectivement ñu ci bokk nag euh, ñu sanctionné la mais ñu ci bokk parce que am na ñoo xam ne jamono yooyu ñu ngi woon seen wàllu hôpital. xam ne yëguñu fii nii dàq nañu sax ñetti fan après ñu continuer di sorti parce que yëguñu ko wax mais li nga xam ne si xëy na moo euh, ko gënee doon moo euh, ko gënee doon sooke mooy banque mondiale ak FMI dana wax gouvernement Sénégal na wàññi fonctionnaire non euh, ci suñu information añee la ñu waroon dëkk jublu malheureusement nag lii muy yoo xam ne xëy na ni ñu ko waxee Euh, ñaan bu bu nangu la si ñoom fii eh, manifester alkaati manifester ñu ne la ah kon de occasion bi nii alors ci lañ dàq ñi bi d'ailleurs sax en quatre ci congrès eh, eh, parti socialiste Habib Bourg sax du du moo mel noonu na euh, fekk nit ki euh, da nga yore entreprise te nga war a dàq nit parce que mënatoo leen fay bu tenir compte ay considération juridique maanaam mooy fekk ne da nga bëgg a ndax ay nit te wala mënoo tollee faire et cetera euh, yow sax quoi affaire bu baax ak sax bu ko toppatoo donc moom loolu la appliqué si fonction publique donc léegi ñu dàq ñi ñu créé commission yi daal si diggante le cinq mai ci la commissaire euh, ay gaañu mooy di mu yéegi peut être ci yi otom ñu fekk ko si suuf vraiment mu gaañu quoi loolu aussi moom mënu ma ci postu ñee euh, ngi ne dafa xaru ñi ngi kii et boobu vraiment version yi bëri na daal hmm. mais version officielle bi nga xam ne ñoom tey nañ ko mooy dafa ñëw foofu dal ko oto bi euh, euh, géej kii bi falaise bi daal ci mu faatu donc léegi bi ñu créé commission yi dafa am ñaari commission ñu commission boo xam ne commission nationale la commissaire de police na doon xool seen i dossier hmm. commissaire de police ab officier de euh, supérieur maanaam commandant yi lieutenant colonel yi ak colonel yi. ñi ci kaw daal. ñi ci kaw waaw mu am commission bu nekk ñu def benn commission régionale xam ne gouverneur bi moo ko présidé woon ñu seet ñeneen ñi quoi donc bi ñu paree si liggéey commission bi euh, euh, mu am benn inspecteur d'état pour ñu wax jaay moom ma egg tur bi hmm. bon moom lañu ñu nommé woon foofu aussi pour muy seetu dossier bi. mais aussi kooku euh, def na liggéey boo xam ne tam ko rafet parce que léegi-léegi da doon nii nit ñi euh, pourcentage daal waaw di la xaw a forcé pour nga boole say morom waaw am nañ koo xam ne sax oo na ko ne ko léegi ah léegi yow sa avenir daal mu ngi say loxo waaw boo nga rëcc boo boolewul boo ci xawul tuur ci ah bon bu boobaa tant pis d'ailleurs sax am na mbir moo xam ne daf ci xaw a doy waar am na koo xam ne benn brigade Ndiaye la sant du ma wax tur bi Ndiaye la sant mais Ndiaye la sant alors vraiment bi ñu toog ak lu nekk la ko wax jiw lii jiw lii parce que dafa bokkoon ci brigade boobu waaw mu wax lu nekk sur su Israël la nekk léegi kooku bi ñuy bi ñuy dugal ñu ñi police bu ko laalee ko ci pourtant ci brigade boobu la bokk de ñi nga xam ne dañ leen ko naan waaye xam nga ni yàlla di def rek bi ñu demee ba ci biir ñun si suñu xeex may dénoncer situation boobu quoi. finalement autorité bi dama gën a arrêté ba dàq ko moom kenn. te li ñu ko dàq moom kenn. bi ñu naan ba jàmm jaww na. ñun ñëpp dañuy jëlaat ci biir moom kenn jëlu ko parce que moom bokkul woon si mu dàq moom dañ ko dàqoon à part. maa mu njëkk xeexal ko aussi bu ñu delloo si ko ci biir. gis nga donc commission bi noonu la dem. nu mu tuddati bi ñuy defee seen liggéey ba pare. Euh, mu am mille euh, deux cent quarante mille deux cent quarante sept personnes yoo xam ne euh, ñoom lañu ñu dàq daal ñu mën a nekk police mm-hmm. muy si weeru concert presque fanweer ak juróom officier mm-hmm. ak téeméeru ak sous-officier ak lu lu ëpp junni alkaat yi ñu rajo leen bon bi ñu la rajo léegi nag ah mu ngi noonu ñun ñu toog ñu organiser wu ñu créé lu ñuy wax Fonds national de projet boobu ñu ngi ko créé Thiès euh, ndem si yàlla inspecteur Amadou Diouf foofu lañ ko créé bon bi ko créé nag ah ñu commencé liggéey bi man maa ko jiite maa ko jiite la coordination bi ñu commencé di sensibiliser nit ñi di dem ci kër diine yi di seeti maam Abdou Seck di dañ ko ay yoon ba am na benn jamono sax nee na moom dootul ñaanati Abdou Diouf parce que daal vraiment euh, faayu ko waaw fàttali ay ndigalam daal. dinañu ko ci ñaan dem nañu aussi Touba donc maa ngi fàttali euh, kii Abdou Khadre moom recevoir ak sama délégation. Hmm. ñu recevoir ñu ñu waxtaan ci commune bi. Bakar aussi jàpp na sama loxo ñaanal ma lu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg bon daal maa ngi fàttali ko sax bi nga génne mu am taay ndax daal bëriwul luñ dégg si seen jàpp ni euh, ko ñaanal ni kon yow de sa sa sa ko dina sotti quoi mm. Mm. <laughs> léegi ñoom suñu wàllu kon maa leen naan bon ñu jógee foofu euh, y aussi la presse. wala mm. la presse aussi dafa bu baax a baax a baax a baax bon ay euh, journaliste yoo xam aussi dañ ci jàpp mu baax a baax ku mel ni Tidiane Tassé ku mel ni Abdoulaye Ndiaga Sylla Sud ku mel ni Ababacar Eh, ku mel ni Abdourahmane Camara Jean Meissa ma hmm. Mbacké Mbodj Amadou Omar Ndiaye. Mame Less Camara Pape Samba Kane vraiment dem nañu liggéey bu rafet boo xam ne tax na. ñu doog a dax population bi dañoo kontaanu. Hmm. xam nga rek waaw xëy ñu sensibiliser daal ci li xew. bu ñu jógee foofu nag ñu aussi ñu organiser ay ay manifestations. donc euh, li ñuy def aussi mooy manifestation des femmes mooy jigéen ñi dama doon organiser pour di def manifestation balaa boobu ñu wax Matar Fall birikat yi hmm. ànd ak jabaram ak euh, juróomi doomam ñu dem buntu palais hmm. waaw di manifester foofu pour ñu jàppale ñu bu leen commissariat central ñu ooma ma dem génne leen foofu tere bi ma leen génne après ñu dem euh, Babacar Touré recevoir ma sud euh, sud du quotidien Euh, ñuy waxtaan parce que dañ ci doon def benn article. Hmm. da sax bon moo xam ne article bu ma bindoon mu yee ko ah mu ne ma commissaire vraiment yow daal vraiment. est-ce que mënoo di def de temps en temps chronique <laughs> ma ne ko ah Babacar de vraiment du ma am jot boobu quoi. kon yow euh, chronique yi ngay def yàgg nga ci. ah non yàgg naa ci <laughs> yàgg naa ci ñeneen ñi ñu ngi doog a commencé di <laughs> mais man quatre-vingt-sept quand même donc man faa xamante ak Babacar Touré quoi ba ba ba ba mhm. donc léegi euh, ñu def ay manifestation donc moom mu def manifestation le 6 octobre boo bi ñu defee manifestation léegi ah ji gi ne ñu il faut que ñu def manifestation man oh, dem na ba pale ñun aussi il faut que ñu def manifestation ma ko waxee ma ne leen d'accord léegi ma organiser leen. ñuy réunion euh, di ko def vraiment si secret xam nga alkaati la aussi xam nañu organiser wu bon ñu koy def li sekat di organiser wu organiser ba ñu jàpp bés bi ñu ne léegi leen di ñuy def manifestation bi mais bi ñuy def manifestation bi dañu alkaati yi euh, alkaati yu boori xamoon nañ ko waaye dañu ne kenn ku nekk docteur ñu may manifester bu wax date bi nga xam ne moom la ñu retenir ku nekk daal na nga bàyyi ba ay booru minuit une heure du nga doo wax sa jabar yi ak léegi la manifestation bi ci minuit noonu lañ ko doxalee quoi léegi euh, man sama soxla kon suba yow yaay njëkk ku ci penc bi waaw donc mu ko defoon rond point Sandaga lañ ko defee woon ko mhm. ma ne ko yow yaay njëkk wàcc sur le terrain effectivement keroog moom moom ci terrain bi yore pancarte waaw boo xam ne danoo exiger la réintégration de nos maris après ci la police ñëw nag euh, ramasse leen dugal leen ci taaru police bi léegi oto bi fees yeneen ñëw si ne ñoom aussi dañuy dox pour ñu jàpp leen aussi ñu dox ba commissariat ba dañ leen leen jàpp ñoom ñëpp jàpp leen fekk si ma tax mais bu ñu leen jàppee boo leen demee police bu leen joxe seen tur bu leen jox seen tur seen tuuru jëkkër noppi leen rek nga leen càlle rek quoi mm-hmm. alors euh, ñu laaj leen ñu bañ a wax waaye booru ngoon daal lañ euh, ma téléphoné ñu ne ma daal euh, police nee na ci soxla rek mooy nañu joxe seen identité joxe seen tuuru jëkkër ak fu mu doon liggéey après ñu libéré ma ne ko ah, bu dee loolu la yàppal problème man joxe instruction mais wax lañ jigéen ñi nañu joxe seen tuur ak seen tuuru jëkkër parce que loolu li ñu ko vérifié ñoom mooy est-ce que ay jigéenu opposition raxuñu woon ci mbir mi dégg nga jamono yooyu aussi euh, doon romb foofu je crois mu doon ñëw fii ni Kasawus mu dégg coow mu ne lan moo xew fi ñu ne ko ah jabar policier yi daal dañoo ramasse fii ñoo doon def manifestation xam nga mu wax. Hmm. mu ne daal waaw mais Abdou Diouf xamul xamul xanaa xamul ne ñi ay soppe yàlla la ñu kenn waroon leen xool képp koo xam ne jàpp nañ leen ah, mais képp koo xam ne yaa ngi def safaan ah yàlla baat boobu la wax te baat boobu aussi dafa mu engagé manifestation jigéen ñi aussi bu mu pare euh, fu nekk dugg nañ fa bon d'ailleurs bi ñu defee manifestation bi le 31 le 4 avril euh, non le 4 euh, nu mu tuddati le 4 novembre. Hmm. vendredi la woon sax quoi ñu convoqué ma man na ak sama délégation bureau bi daal. Hmm. ñu nekk de l'intérieur. boobu André Sonko la woon quoi. ñu dem ministère bi ñu demee ministère ñu recevoir ñu. directeur rek ñu woon foofu ministre baa ngi foofu directeur de personnel ak yeneen ñaari kilifa police quoi donc André Sonko ne ñu voilà daf ngeen manifestation président Abdou Diouf da vraiment kontaan ci mbir mi ah bu sañoon lii du am bon léegi daal wax na leen ni yéen daal ko ñu dootu la son bon vraiment jeexal na ak yéen quoi hmm. ah ma wax ministre bi keroog wax na ay kàddu yoo xam ne sax ñu ñagasal sax quoi hmm. waaw te vraiment waaw te moom vraiment de ministre boo xam ne dafa ku baax la ku ñu yor te bi may mujjee wax nag mooy dama wax ba pare ba yuuxu ma ne allah akbar waaw dama ko ne daal dama ne ñu xeex ba ànd doog a door te dëkkalu suñu suñu suñu suñu suñu borom allah akbar mais bi may jóg nag fekk maa ngi suñu anango bi may jóg nag sama mbubu bi fel chaise bi chaise bi daan léegi sama morom yaakaar ni man maa tey ma fel chaise bi ñoom ñëpp ñu fel chaise bi chef tam daanu mu def benn bourran après léegi xam naa kilifa police yi xëy na xaw a ñaaw njort dañuy alerté commissariat yëpp a Sadio ngi nii génne na ak ay nitam te dañuy ragal ñu def de si biir dëkk bi ñun daal gis nañ que yi ñu koy gën a garder ak loolu hmm. alors vraiment ñun suñu xel si hmm. manifestation yi la bokk ensuite am euh, benn bés boo xam ne si dañoo organiser benn réunion réunion boobu réunion bu tëla woon aussi parce que attaque bi nga wax ni nañ def lii nañ def lii ñii ne Jean Collin kon ñu ne jaaj ñu ne Duxaan et cetera parce que ñun teg koo xam ne kilifa nga di si dëkk bi li ngay def xam nañ ko booy naan sangara xam nañ ko booy naan xam nañ ko booy doxaan xam nañ ko fi ngeen doxaale jigéen ak fi ngeen di tas yëpp xam nañ ko. Mm. police am nañu bon bi ñuy waxee ba pare c' est de l' état sax daal bi ñuy ñëw wàcc routière ba di def place bi nga xam ne ñu ngi fay dañu ko ah, élément renseignement mu ne sama gars yi dem leen la wax ñële vraiment bëggoon ñu jot ñoom ngeen jël seen yoon daal waaw parce que ñu xam ne ñu ay RG lañu effectivement la mais ñoom i tànn jër jër jër jër daaw man kilifa laa te damaa am dama yow ma bàyyi nit ñi parce que nit ñi boo leen ci seen xol tànn da di bàyyi wax bu ñu waxee ba pare yow lii kilifa bi rek yow yaa seet ñi nga xam ne noonu ngay doxale ko ñu jógee kaw na rek dañu ba tas réunion bi tasee na ñu toog arrêté

station après ma ne bon xëy na am na xëy na ji daal xëy na am na lu ñu lu ñu raar ma ñëw si bureau directeur général ñu toog ñu wax mu ne ma commissaire am na ay oto yu explosé boobu sax ma tax woon information boobu mu ne ko ah ma ne ko ah directeur bi yaa ma koy ci laa koy doogu yëpp quoi mu ne ma effectivement à sept am na ñu téléphoné pour ne xaw ma mouvement de libération xaw ma nangam alors maa ko man jiite moom mouvement de libération mu ne aussi bi ñu toogee huit heures euh, ñu ne xaw ma lan mouvement policier nangam nangam ma ne ko sama mouvement man tuddul noonu man maa ngi jiite la ñuy waa coordination nationale des policiers rajo. Hmm. mu ma d' accord mu ma mais yéen keroog Kaolack une réunion boo xam ne lii ngeen wax lii ngeen wax ma ne ko nga demoo ci dara li nga wax yëpp effectivement kàddu yooyu waaw ma ne ko nag. dama bëgg boo demee nga ne Abdou Diouf na sant yàlla bi nga xam man commissaire de police Boubacar Sall te nit parce que man dama dal responsable la te sama yéene du dara lu dul di dellu ci biir police bi donc police bi nga xam ne dam ci bëgg a dellu du man maa koy yàq du man maa koy tas donc seen xel da man ko nag ñii ñi nag bu ñuy wax dañuy wax xol bu tàng. Hmm. seen xol moo jeex seen yaakaar moo tax da nga leen di bàyyi bu ñu wax bu ñu waxee ba pare nag xam ne yooyu yaa responsable yooyu yaa seen après ni ngay defaree yëf yi ak ñi nga ko def ñoom ñu bañ a antu man ko noonu laa géré euh, policier ci euh, rajo mu ne ma waa d'accord ñu bàyyi ma ma dem mais dama dem egg sama kër rek ma léegi jàpp nañu ñi nga xam ne ñoo toppoon ci man waaw. ko ñuy wax Alaaji saako ku ci yàlla Sakho gaañu na ku ñuy wax Samba Fall ku ñuy wax Pape Djité ak ku ñuy wax Madiène boo def ci léegi nag ñaar élément yu péré muy ci ak Pape Samba Pape Samba Mboup donc juróom-benn lañ woon quoi. ñu leen jàpp aussi ñu tasaare leen ci commissariat yi ñuy Rebeuss ñuy Médina taatu ñeneen ñi bàyyi donc di leen yóbbul seen añ seen reer et cetera après ñu defeere leen bi ñu leen defeere nag ñuy xeex di xeex xeex euh, dem naa sax ba Ousmane Camara nga xam ni mu ngi woon fële Cour suprême recevoir ñu bi ñu recevoir euh, keroog sax du jour audience waaye bi ñu ko annoncé ne policier la ñu mu ne ne leen ñu ñëw bi ñu ñëwee euh, mu recevoir ñu wax ñu vraiment kaddu rafet am na lu ñu wax sa ci Jean Collin waaye du ma ko wax fi mhm. nest waaw du ko wax fii mais après ma ne ko euh, président euh, boo demee nga ne autorité yi procès am parce que projet ba si tax état bi dina yeeru te garanti naa la procès du am mu ne waa ah, commissaire bi nga wax réunion bi ma ne ko garanti naa la am effectivement procès amul dañ leen def mu mujj kura euh, juróom benn weer rek après leen comme ça ñu dem seen yoon quoi procès amul quoi donc vraiment muy loo ne Euh, période bi jafe na boo xam ne ni ñi biñ ko dundee euh, am na ñoo xam ne tardé ko nañu seen sago am na tax euh, ay doom yoo xam ne dematuñu école mais li ci gën a métti aussi mooy ñoo xam ne xëy na ay jën lañu woon ñu waroon a avancer ci seen carrière ñu bloqué leen vraiment métti woon na métti waay boo xam ne bon te aussi euh, amoon na kay ndimbali après bi Sénégalais comprendre euh, mu am ñoo xam ne seen parent ñoo leen dimbali am na koo xam ne aussi naa ko tudd muy au niveau de liberté cadre nga xam ne foofu moo doon chef policier vraiment jàppale na leen jàppale boo bu am solo moom ma Madi Kenya Abdoulaye Wade aussi jàppale nañu parce que euh, am na soppi maanaam soppi bu génnee numéro boobu dañ ko jaay li nga xam ne am nañ ko ci xaalis yëpp ñu jox ko ay un million quatre cent et quelque la moom. xaalis boobu sax waaw chèque boobu chèque boobu bi ñu ko ñu ngi ko joxoon ci bureau euh, Boubacar Sall. Hmm. waaw Boubacar Sall ak yow foofu. Abdoulaye Sall foofu xuree si baaxul waaw euh, vraiment euh, remercier leen effectivement boobu xaalis bi ñu jël ko di ci fat suñu déplacement et cetera. Hmm. mbir mi daal noonu la demee am na yenn yoo xam ne nag ay détails la hmm. parce que. mënu ma wax lépp ci ci rajo bi. Mhm. parce que am na loo xam ne ci lii la dinaa ko def. dëgg la léegi nag ñuy xeex ba su nekk chaque année bu ñu amee session budgétaire mais bind député yi presque pendant juróom-ñaari at chaque fois rek mbir mi di mel ni mu bees daal parce que après ci nga xam ni daal mbir mi loxo yàlla ngi ci. Hmm. alors finalement ci euh, Abdou Diouf jël décision ne léegi euh, dafay créer commission pour ñu seet pour ñu ci rajo yi. léegi li leen di la hmm. léegi ñu war a créer police euh, touristique police de chemin de fer ak police municipale waaw hmm. dina ko ci biir nag ñu ne léegi ne ñu bàyyi police touristique bi ak police de chemin de fer bi ah léegi leen dugal police municipale alors ci dugal police municipale léegi police municipale police régionale bu nekk ñu yóbbu fa euh, ay policiers municipaux hmm. Dakar moo ëppale woon après Pikine waaye seen et cetera quoi bon man bien maa ngi woon euh, police municipale bu Pikine comme directeur après si mujjante bi laa dem police municipale euh, bu Dakar bon bi ñu nekk police municipale aussi euh, deux mille deux ñu def li ñuy wax mise à disposition maanaam ñu jël ay policiers maanaam ay inspecteurs gardien de la paix yi yóbbu leen ci bi ñu liggéey ci biir police bi maa ngi woon si yàlla bi mais également maa ngi woon ci mujjante bi. parce que bi ñuy def cérémonie bi école de police man maa jël kaddu man maa wax aussi ci turu bi ñu pare sax ñetti fan après euh, maa nag Ousmane Ngom ñu dem euh, Abdoulaye Wade recevoir ma palais n'est-ce pas bon euh, bu loolu weesoo léegi comme ni ma ko waxee bi Macky Sall ñëwee vraiment mu def jëf yu rafet parce que toogoon nañu juróom-ñaari at yoo xam ne cotisé wuñu non seulement cotisé wuñu waaye li ñu jotoon cotisé dañ ko jëloon aussi pour léegi Macky Sall bi ñëwee mu jox ñu xaalis pour li nga xam ne jëloon nañ ko léegi vraiment ñu fay ko ak li nga xam ne léegi aussi waroon nañ ko cotiser juróom-ñaari at yi mu cotiser ñu ko ba nga xam ne léegi o am pension pleine hmm. waaw kooku daal bu baax kon loolu fi mu ne am ngeen ko waa am nañ ko ñu ngi am am pension pleine hmm. vraiment alhamdulilah waaw am na yoo xam ne effectivement euh, mu nga ko rattrapé parce que nga euh, toog juróom-ñaari at amula salaire nga war a si mënoon xëy na am loo liggéey tabax si sa kër ba ba léegi euh, euh, ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy aussi euh, lu ñu ci mën a doole ci ndimbal rek mu def ko pour ñun ak aussi pour surtout veuve yi parce que même situation bi passé xaalis boobu mu joxe pour ñun veuve yi aussi vraiment ñu ngi ciy jooy je crois que xëy na seglu ñu leen si waaw bokkuñu si pas ak njëriñ yi je crois que war nañu jëlee en compte daal yëf yi daal noonu la demee daal brigadier Cheikh xam ni moom mooy président mouvement Euh, des policiers radiés des policiers retraités parce que damay préciser ci moom du policier radié waaye kenn mosu ko radié donc te euh, euh, aussi xamee ko noonu daal mais moom mooy président mouvement maa retraité mais aussi ma koy gërëm ko sant parce que fekk wala mu ngi défendre police rek day défendre policier radié quoi vraiment loolu aussi donc moom toogoon na audience ak président de la république de policier radié aussi quoi comme ni ma ko waxee suñu président mu seet aussi nu mu ñuy ñenn ñi mu ngi amul ay pàcc boo xam ne euh, ñi ngi dañ ci euh, parce que day loo xam ne loo la boo xam ne état bi moo ñu ko te loraange loo xam ne dafa sukkandiku si décision boo xam ne constitutionnel ah waxuma anticonstitutionnel la comme ñi di ko waxee c'est un terme mal propre mais inconstitutionnel donc bu ñu mën a jàppale ci moom nu mu mën a jàppale ci pour daal coono bi nga xam ne dund nañ ko si radiation bi mu xaw a giif ci mu xaw a def <laughs> vraiment euh, ñu ngi mhm. ñu wax tuuti ci yow commissaire sànq yaa ngi wax ni yàgg nga ci ay mbirum cronique ak yooyu euh, mhm. da nga am benn côté activiste bu nekk ci yow boo xam ni moom nga nekkee woon ci police wala loolu bi ñu la rajee ci la tàmbalee génn mel ni genre révolte wala fippo non c'est que bon moi de par nature je suis foncièrement contre l'injustice maanaam daal lu dul yoon lu dul dëgg daal ak jaay doole dama ko mos contre mais bi ma nekk si biir police aussi euh, amoon naa samay idée n'est-ce pas mais gannaaw damaa ngi woon si biir police am na yoo xam ne mënu ma ko woon def sañu ma ko woon def parce que euh, li nga xam ne moo charte police moo ma tënkoon n'est-ce pas mais bi ma demee ba nga xam ne xëy na nekkatu nekkatuma biir police vraiment dama retrouver li tubaab bi wax sama liberté de ton sama liberté de conviction ak sama liberté de de de d'opinion maanaam euh, sañ-sañ yi nga xam ne citoyen am na ko vraiment si sañ-sañ yooyu yëpp jotoon naa ci donc loolu moo tax léegi may dénoncer loo xam ne dama yaakaar ni du yoon bon boo gisee aussi souvent may bind man souvent Macky Sall lay adressé parce que keneen koo wax aussi da nga koy tooñ parce que Macky Sall la jox sunu baat Macky Sall mooy signé décret si suñu tur Macky Sall mooy dem di lebi xaalis si suñu tur Macky Sall mooy dépensé si suñu tur Macky Sall moo wax ni que boo leen ma fale dinaa leen defal dugal leen wala ngeen naan bu mande jox leen ngeen lekk ba suuf donc fi mu nekk fi boo amee looy wax rek boo amee loo xam ne soo xamee mais Macky Sall ngay adressé keneen koo wax rek vraiment da nga koy loolu mooy expliqué effectivement mm. ma gisee loo xam ne yaakaar naa ni si biir réew mi vraiment ma dénoncé ko du question opposant du ma opposant citoyen laa loo xam ne euh, dëkk bi moom ma ñor xam nga souvent ñi ñi dañuy wax ni la politique euh, mooy l'art de la cité mm. mais man damay wax ni la politique c'est plus que l'art de gérer la cité. La politique, c'est le devoir et le droit, effectivement, de s'intéresser à tout ce qui se passe dans la cité. donc ëpp na raw na foofu l'art de gérer la cité donc ki nga xam ne sunu baat effectivement mais kooku du ñu ko neex mu war a def parce que lépp loo xam ne def na ko sax daf ñu war a informer ne ci kaw sañ-sañ bi ngeen ma jox lii ak lii ak lii laa def bon bu baaxee ñu ne ko baax na fekk ni lu ñu war a ñu ne ko jubanti c'est la même chose comme ni may waxee rek ci wàllu police rek police effectivement service public la dañ fi nekkal nit ñi pour aar seen kaaraange n'est-ce pas donc ñun citoyens yi am nañu droit fekk police def na liggéey bu rafet ñu tàcc ko ne leen bravo jaaraama mais fekk ne def na liggéey boo xam ne soo sooxe na wala loo xam ne méngawul ak li nga xam ne moom la yoon santaane mais am nañu droit ne ko jubanti leen mbir mi noonu la il faut que ñu li tubaab di wax ñu humble ah, ñu modeste et si ñu xam ne aussi ils doivent rendre compte loolu moo euh, sabab effectivement mu bind mais du question dama nekk activiste ak yooyu quoi mm-hmm. voilà mm-hmm. Mm-hmm. léegi ci sa jaar-jaar tamit en tant que police tuuti euh, lan nga ci gis comme jafe-jafe loo xam ni xëy na tey ndaw yi ñu ngi koy dund ba léegi te nga bëgg mu soppeeku waaw li ma bëgg mu soppeeku mooy disons que euh, noonu bi nga xam ni am na diggante police ak population bi n'est-ce pas vraiment population bi nañu xam policiers yi ay jàmbaar lañu policier eh, xëy na bu ñu taxawul woon xëy na doon na gën a ñaaw policier yi en principe ñoom lañu fi nekkal te policier yi liñ leen di ci payoor liñ leen di jox si tenue ñoom askan bi ñoom ñoo cotisé xaalis boobu donc ki nga xam ne da nga ko jëndal tenue euh, da nga koy fay salaire kooku effectivement war nga ko jox respect bu mot sëkk sinon rek dafa mel ni da nga jël sa xaalis nga sànni ko. war nga ko jàppale itam ba liggéeyam. mën a sotti maa ngi ñëw mm. maa ngi ñëw maa ngi ñëw. mooy collaboration bi waaw. voilà da nga ko war a jàppale. mais effectivement maintenant si côté boobu jàppale boobu mm-hmm. je crois que policiers ñoo war a gën a def effort pour citoyens yi jàppale leen parce que aussi fekk ne nit ki dafa ñëw poste police ba nga gëdd ko nga saaga ko wala nga jàndi ko kooku du sawar di la jàppale mm. du sawar di la jàppale waaw di di leen lii voilà ensuite nee naa policiers yi n'est-ce pas euh, bu ñuy def intervention kenn mënu leen tere ñu def intervention képp koo xam ne yaa ngi ngañ police parce que day def intervention da ngay nax askan bi parce que régime bu nekk boo ñëwee fii il faut nga utiliser police mm. waaye policiers yi ñoom seen bopp mu ñuy def seen intervention nañ ko dawale xel nañ ci ànd ak mm. nañ ci ànd ak xel et puis nañ ci ànd ak aussi di respecter doomu aadama boo boo war a sandi euh, lacrymogène da nga ko war a sandi parce que effectivement situation bi moo ko laaj mm. mais am na noo ko war a sandi kooku dañ la ko jàngal ensuite nit ki boo demee ba jàpp ko nga xam ne léegi mu solo sa loxo mënul rëcc jarul dóor koo xam ne xëy na jàpp nga ko dugal ko ci oto police jarul dëkk ci et cetera n'est-ce pas donc yu mel noonu façon yu mel noonu foog naa président war nañu góorgóorlu pour ñu bàyyi ko pour ñu respecter vraiment yelef ak ak doomu aadama bu ñu ko defee moo am respect réciproque ñii population bi di respecter police di leen jox si cër et cetera police aussi di am yërmande ci askan bi et cetera mais pour ñu mel ni Mburok soo loolu mënut a nekk mënut parce que vraiment. Euh, léegi léegi askan bi bëgg a wane meram et cetera. Mm. xëy na am na noo xam ne bu ko mere bu ko wane aussi xëy na day du méngoog yoon police aussi du ñu toog rek de croiser les bras di seetaan aussi ñu waxante dëgg aussi donc ku nekk war nga def li nga xam ne mooy sa weeraf mais def ko ci anam boo xam ne vraiment dooloor keneen kii ensuite def ko ci anam boo xam ne aussi da koy jox respect bu mot sëkk nga def ko aussi anam boo xam ne bu subaa di nga mën a tase aussi toog bokk di waxtaan. waaw alors situation policier yi nag diggante hmm. ñoom ak état yéen bañ leen rajee dund ngeen ay jafe-jafe tey booy hmm. jàngat situation policier yi lan ngay jàpp commissaire bon na li ma li nga occasion la sax pour moo wax na ni manifestation yu amoon quatre-vingt-sept hmm. li nga xam ne aussi euh, taxaw na ñi ñu gën a manifester mooy condition yi policiers yi doon liggéey dafa metti waaw waaw dafa métti woon lool amuñu woon oto amuñu woon carburant te aussi par rapport ak suñu yeneen naataangoo yi ah, nga xam ne ay takk der la lañu vraiment suñu payoor bi dafa néewoon. lool notamment gendarme yi. waaw waaw seen payeur dafa na woon lool lool ba nga xam ne fekk finalement nit ki boo ñëwee commissariat ba ni commissariat bi bindoo sax doo am respect si policier donc naqar boobu aussi bokkoon na si léegi nag vraiment situation bi tane naa bu baax a baax a baax et fii côté boobu aussi vraiment aussi nañ si remercier le président Macky def def na góorgóorlu na si wàllu payeuru alkaat yi ba fi mu toll fii vraiment alhamdulilah ñu ngi sant yàlla mais aussi buñ ko gën a mën a yokk aussi parce que loolu du doy jox na leen matériel boo xam ne aussi ñu ngi ciy liggéey lii ba ma bi ma nekkoon commissariat Guédiawaye mais bu may defeere clando laay jël dugal ci détenu yi yóbbu leen foofu essence doo ko am lu bëree bëree effectivement da nga koy mais léegi je crois que matériel bi am na mais matériel bi aussi dañ ko war a yokk yokk bu baax baax a baax a baax parce que ñi euh, ñi dañuy yokk euh, recrutement bi aussi nañ ko def parce que euh, li nga xam ne moom laa lay wax ñun 87 bi ñuy dàq police bi 6265 personnes la ñu woon alkaati mais Euh, toog nañ presque fanweeri at yoo xam ne weesuñu quatre mille policiers xam nga loolu sookee na bu baax a baax donc mënuñu woon assurer la sécurité comme il le faut waaye gis naa ni temps yi ñu ngi góorgóorlu ñu ngi recruter mais nañu gën di recruter nañu gën di leen jox équipement mais équipement boobu na nekk équipement boo xam ne du équipement répression waaw na nekk équipement boo xam ne vraiment nañ ko jox commissariat yi nañ ko jox brigade de recherche yi parce que problème yi pour citoyens yi du affaire terrorisme comme ñi ñi di ko waxee léegi di tiital ñi ñi du loolu sénégalais bu yeewu ba dina xëy xëy ba ba muy nelaw ci lalam xalaat xelam sax du dem ci terrorisme xam nga lu xelam ci lu muy dem hmm. ba ma génn ci koñ ñu dogaale ma ba ma duggee ci car rapide ñu këf sama marché loolu loolu mooy seen problème hmm. donc ci loolu lañu ñu liggéey pour que vraiment agression yi euh, braquage yi ak euh, siif euh, bagage su jàmbur ñu wàññeeku loolu nag vraiment dafa laaj personnel bu doy dafa laaj ñu leen di jox commissariat euh, oto yu doy dafa leen laaj effectivement ñu leen jox essence bu doy ba nga xam ne fu leen citoyen soxla rek ñu effectivement ñu mun leen jàppale jox leen essence bu doy oto bu doy pour aussi ñu ñuy def ronde di wër ci dëkk bi ah citoyen warul toog par exemple une heure de temps gisul auto police loolu yëpp day dalal xel. Mm. li tubaab di wax sentiment d'insécurité da koy wàññi quoi mm. voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. alors commissaire fi ñuy jeexalee mooy yow personnellement ban jàngat mm-hmm. nga def. ci li li xewoon 87 yëpp. Euh, li xewoon si 87 yi euh, maanaam euh, état bi dafa affolé woon daal waaw dafa affolé woon Abdou Diouf aussi affolé woon mu am Jean Collin moom nekkoon ci wetam vraiment aussi je crois que joxu ko conseil bu baax. waaw jox ko conseil bu baax parce que bu ko joxoon conseil parce que jamono Jean Collé lu mu décidé rek moo doon am Sénégal loolu moo doon dëgg bi quoi lu mu décidé woon moo doon am Sénégal te député aussi danoo daw seen responsabilité motuñu woon vraiment ils ont le les parce que loolu du woon seen cër waaye nag majorité mécanique moom comme ni mu amee jamono yi lu président andi rek ñu voté ko mais des loraange boo xam ne kenn mënu ko fàtte ñun de xëy na baal nañu. ñenn ñi parce que am na ñoo xam ne ba léegi policiers rajo yi nee nañu ñoom mënuñu baal parce que lii moom méttiwaay googu xam ne képp ko dundul mënoo ci témoigner képp koo xam ne dundul xëy na mën nga ci wax rek parce que am na ay information yoo xam ne c'est du domaine public mais am na loo xam ne li tubaab bi wax c'est ineffable c'est-à-dire que kenn mënu ko il faut nga dund ko pour que problème bi mel noonu état bi war na ci jël exemple pour vraiment di bañ di def action en masse ah di rajo ay junni nit parce que ak ak parce que anglais parce que loolu moo andi euh, sooxe boo xam police na ko euh, jonn jamono yi waaw am loo xam ne police mënu ko koo pour mun ko mu mun ko mm-hmm. loolu nag vraiment il faut que autorité di tel xel député yi bu leen andi ñu xool loi bi est-ce que baax na pour askan wala baaxul pour askan bi amoon ci euh, nu mu tuddee quatre-vingt-sept ñu xam ne aussi policier rajo yi responsable waaw vraiment xeex nañu seen xeex dans la euh, dans la paix tranquillité euh, de manière pacifique parce que am xam ne mënoon nañu ko fi def waaw parce que gis nga bi manifestation bi amee jigéen yi directeur renseignement bi dañ ko o réunion coordination waaw li moom mu am ko boobu ba li am mu ne euh, commissaire Sadio ak ñi ñi àndal mais ay policiers lañ comme si ñoom te ñun suñu gars yi am na ñoo xam ne ñoom commissaire Sadio yi ñoo leen formé te loolu lu mu réussir Euh, ñun ay alkaati on a utilisé li ñuy wax intoxication. Hmm. utiliser nañ ko désinformation utiliser nañ ko manipulation utilisation utiliser nañ ko du ma dugg ci détails yi quoi bu ma génnee livre bi dinaa jox si yeneen détails hmm. loolu moo tax service de renseignement yi ñu woon xam li xew moo tax ñu bett leen daal. Hmm. waaw donc vraiment pour dire que rek. vraiment euh, enseignement yu bari mun nañ ko tirer si radiation bi mm. du point de vue juridique du point de vue administratif du point de vue sécuritaire du point de vue social vraiment domaine boo jël daal vraiment mun nga si am njàngat boo xam ne vraiment euh, nit mun na si def sa tes waaw mun na si def thèse état daf ñu tooñ état def ñu daf ñu lor euh, dafa ay conséquences yoo xam ne kenn mënu ko natt li Abdou Diouf def dafa metti waaw nee na Abdou Diouf def na loo xam ne vraiment benn président de la république musu ko def quoi jël euh, juróomi juróom benn junni njaboot sant leen ni ci biir mbedd bi ci ñoo xam ne vraiment lu nekk nañ la ko lu nekk defal nañ ko moo tax ma ne takk der yi euh, bu dee nation bi la nañ ko servir vraiment au jusqu'au sacrifice suprême maanaam bu dee nation bi la na leen jaral seen bàkkan bu dee république bi la nañ ko nañ ko jaamu nañ ko respecter nañ ko servir avec dévouement bu dee état bi la nañ ko servir avec loyauté cest parce que amul benn loo xam ne dañ ko ciy naatable waaye bu dee régime bi la nañ ko servir avec intelligence et discernement maanaam bu dee régime la eh, andi si ak sa xel waaw andi si ak sa ak nga parce que état bi moom moom sengoor baay moom la Abdou Diouf bàyyi moom la Abdoulaye Wade moom la Macky Sall di bàyyi république bi ak nation bi moom la ñuy bàyyi waaye nag kenn ku nekk da nga ànd ak sa régime te da nga dem bàyyi fi état bi bàyyi fi république bi donc ñoom bu ñu servir aussi nañuy servir ak intelligence te ñu xam ne ñoom dana sokkeeku si askan bi te lu mu yàgg-yàgg si askan bi la ñuy dellu également donc vraiment je crois que euh, conseil boobu laa leen di jox euh, bàyyi leen aussi euh, ñu ñuy xalaat loolu bu baax a baax a baax bu ñu xam ne bu ñu jàkkaarloo askan bi rek ñu xam ne seeni mbokk la ñu jàkkaarloo ko donc ñu seet léegi seen doxalin daal. waaw mais police bi actuellement vraiment aussi euh, ñu ngi góorgóorlu ñi jiite police aussi vraiment ñu ngi góorgóorlu waaye na état bi baral euh, loxoom surtout affaire équipement am na loo xam ne aussi maa ngi koy attirer attention ñi mooy xam nga am nañu pétrole. Mm-hmm. am na ñu gaz. Euh, loolu léegi léegi day indi li ñuy wax convoitise te loolu bu commencé am. vraiment il faut que te si territoire sénégalais bi la nekk il faut que euh, suñu force de défense et de sécurité bi ñoom ñoo war a assurer sécurité boobu donc état bi na bàyyi xel ci recruter ay nit yu doy pour def liggéey boobu nañ leen équiper équipement bu doy pour ñu mun a def liggéey boobu nañ leen def formation bu doy comme ni ñu former léegi ci au pétrole pour que loolu bu ñëwee ñu am ñu ko mun a liggéey ni ñu former effectivement force de défense de sécurité ci côté boobu parce que sinon bu ko defulee compagnie yooyu di ñëw di exploité bi xam nga lu ñuy def mm. dañuy dem jël service ñi ñuy wax établissement militaire et de sécurité publique euh, privée mooy ñoo xam ne ñu bokkuñ si suñu takk der te vraiment daanaka ñoo gën a xaw a xarañ sa suñu takk der ëpp leen mm. ñoom ñooy ñoo di liggéey liggéey boobu quoi te loolu nag baaxul si réew mm-hmm. parce que lu nekk la mën a jur quoi donc vraiment d'accord na ci ñu augmenter euh, puissance de feu Euh, armée gendarmerie ak police waaye bu ñu ko jubal ci population bi. jërëjëf commissaire Boubacar Sadio ñu ngi lay gërëm. ñoo ko bokk ñoo ko bokk amoon nañu mbégte lool ko la ci démb ak tey. ñoo ko bokk kon mbokk yi seen émission démb ak tay la woon ñu doon dalal commissaire Boubacar Sadio commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle à la retraite doon waxtaanee waat nañu dundee keroog radiation ba 13 avril 1987 ak itam li ca toftalu ni jafe-jafe ci seen kaw waaye itam jéego yi ci nguur yi def rawatina ak président Macky Sall jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm itam Ndiaw Diallo mi ne woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi dig daje keneen émission bi mun ngeen ci réew mi officiel mooy sunu chaîne ci YouTube ñu yendoog jàmm